moom moom de Mbàkke dooyu luñ te duñ doyal ci mukk waaye njabootu xaside gii bëgg nañ ko leen dolli ci xaside yi lu mu gàtt gàtt njabootu njabootu Cheikh njabootu xaside yi حسني شيخ خزيدي لك شيخ خزيدي لك لما انا خمس ريال شيخ خزيدي لك انا بقدر شيخ خزيدي لك خزي شرب متواصل parce que it bu xamee fi ñëpp di tuddee mooy liggéeyub sëriñ bi diggam ak maamam diggam ak yonent bi liggéeyub sëriñ bi diggam ak maamam diggam ak mooy xas day ah waaye ñoom dañoo dafa nekk xam daa di yàgg naa leen ko wax am taw taw fexe rek lañ ko may am ñoom ñu te nekk te nekk ci liggéey xas dégg ci xas na yi xaas la am nga xam ne taalibe yëpp war nañ cee ñee te ngeen dund ci fàggu yàlla nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ am waaye yéen xaas ngeen am dafa ne ma xool sëñ bi rek moo tax tudd ma leen moo tax dama foofu rek laa ko laaj fa may xool sëñ bi rek foofu foofa rek laa leen kon moo tax jëriñ ma jëriñ ma te jowoon naa jëriñ ma waaye noonu rek la demee ñoom xaas yi ñoom dañ leen yàlla bu baax dañ leen yàlla bu baax a baax a baax te it ngeen jëme ko kanam looloo tax nga xam ne moo lii bu ko waral te sëñ bi su waxoon rek sëñ bi am na ful la foo ko toll bu toll la

kon nañ nañ koy dolli sëriñ bi dina dolli ñu ànd dañu am sa fasaale nu na nga dem ñoo bëgg lu bëgg bëgg nañu ànd yow waaye fasaale nu sëñ bi ñu jàpp ci suñuy loxo te bu bu gi nga dinu noonu la dina wax euh,